Sambayani ngan lambu sakina Sambayani ngan lambu bulan Bulambu sakina Bermawab ubah njaan lamb sajina lamb sajina lamba yaa ngi njaan Dacia ak santan yi ñëpp ngeen ñaanal jàmm ba ñu mën a yegg si jour ba te le maire gañ xam ne ndam li moom du génn Sénégal donc di profité aussi di nuyu suñu jigéen Catalina vraiment di koy encouragé di koy félicité bu baax si nii nga xam ne mu ngi koy jàppale làmb donc di ñaax ñëpp aussi euh, di lancer appel gouvernement bi lii di produit King Harmonia mhm. suñu jigéen Catalan dañ ko war a jàppale bu baax a baax tey à travers événement yi nga xam ne ñu ngi fii am ñu leen woo di jënd seen produit di fexe aussi à travers li nga xam ne mooy impôts yi ñu leen di wàññil parce que vraiment ñu jàppale làmb loolu amoon naa loo xam ne naa ko ci wax peut-être euh, ñu ngi si suñu fin saison nañu woote benn point de presse boo xam ne pour fi ñuy jaar yëpp si année bi. incha gën ci wax wax ñi jappalé ak ñi nga xamné évaluation liggéey ak ñom évaluer li ñi def lépp. donc di remercier police bi aussi di profito di lancer appel aussi mais jeunesse bi voilà ak lu waa làmb dañu xam ne yëf yi. Sénégal yemul fenn donc wax ju ñaaw je crois que jaru ko fi. Mm-hmm. parce que tey li ma ciy wax rek mooy à un moment dama gis ne wax ji bëri na travers internet bi ñeneen ak ñeneen ñuy wax di. jëmale ŋàññ ñi ci loo xam ne si CNG la c'est anormal. Mm-hmm. tey CNG Bira Sène bi ñu ko fi fal du ñun ñoo ko fal. ay kilifa ñoo ko fal. donc defe naa ne ay nit toog seen ruq. waaye tàccu leen loolu waaye tàccu leen loolu waaye am na solo. defe naa ne ay nit toog seen ruq. di wax foog ne loolu seen wax mun na fi jële Bira Sène dañu nax seen. dañu caaxaan rek parce que fa ñu toog di wax balaa ñu faa jóge ñu am information yi. dëgg la man nitu dëgg laa te ku ma xam xame ma ko Bira bu defoon loo xam ne lu anormal la man kii njëkk a dal ci kawam laa nekk. kon nañ ko bàyyi mu liggéey ñaanal ko jàmm.

ñi nga xam ne tey ci nii bu ñu mënee def lii. Hmm. tey làmb organiser defal ay milliards ci làmb bu sécurité ñëwul mënoo am làmb. Hmm. kon tey ñoom nañ leen jaajëfal leen di di xam ne du ñàkk nag yenn saay ay jàppante am. waaye ñu ni neen la. waaye ñi dañ leen war a jaajëfal parce que tey. bu ñu tëddee nelaw ba yandoor wala mun a am di génn sa ñoom la ñu ngi si frontières yi di guddeeg bëccëg nelawuñu di aar suñu alal kon nañ leen jaajëfal dooleel leen kilifa yi nga xam ne te aussi